téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom mais sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis 5 ans. C'est le M5, le X5, le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous ne puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti-choc. Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles, au bureau comme en dehors du bureau, pendant votre sport ou pendant les travaux champêtres, les chantiers ou en mer et partout.

rabbi inni lima ansalta ilayya min xayrin faqirun rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawati samadi بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات jërëjëf sëñ Bollé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu santee yàlla di sant sëriñ Touba di jaajëfal maam Cheikh Rahima Fall ñoo ngi delloowaat di nuyu kilifa gii nga xam ne moom la ñu toogal Serigne Koso ibnu Cheikh Ahmadul Muntaxa di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool tànd ak wér di nuyu sëriñ xaadim moom it di sëtub sëriñ Afia Mbakke ànd ak sëriñ Koso ci karawaanu maa yomb bii nga xam ne moom lañuy def di ci fàttaliku jaar-jaar yi nga xam ne sëriñ bi nekk woon na ko foofa ci barab yu wuute di ko tàmbalee libar Libreville ak euh, Mayomba ba ci Lambaréné tey nag euh, ñu war a def karawaan bi jëm foofee ca Gabon di ñaan li nga xam ne sëriñ Touba defal nañu ko ñu yëg ko ci delloo ko njukkal ndax sëriñ bi kat bi muy dem li nga xam ne wax na ko mooy yéene woon ñëpp jàmm ci demam gi nga xam ne mi ngi ko doon dem ba ne maa ngi dem liggéeyee li yàlla su ma ñëwee ngeen añ añ boobu nag yaakaar naa ñëpp gis nañ ci seen bopp kon bu ñu demee ba ànd ak sëti sëñ yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ànd koo karawaanu maa yomba ci njiital sëñ Cheikh Mbeng loolee dañ koy rafetlu di ci sant yàlla bu baax a baax mu mel ni nag ñun li ñu gën a yéem ci ci ci ci karawaan bi mooy sëriñ bi bi muy dem Gabon euh, bàyyiwut àdduna Cheikh Amadou Bassir waaye batale woon na aw turam wax ne bu dee góor nañ ko nañ ko tuddee Bassir bu dee jigéen yu tuddee ko Soxna Jaara yàlla dogal Cheikh Ibra Fall njëkk am am Basiiru tuddee ko sëñ Basiiru daan ne sëñ Tuubaa la mu njëkk wax mooy am daan tuddee naa ko Basiiru ma ñëwagul yàlla dogal bi sëñ Basiiru ñëwee muy am sëñ Basiiru tey bu ñu demee ba ànd ak ab sëtam mu dem di nemmeekuwaat liggéey boobee nga xam ne e, sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dana waat naa wàcc naa wàccaleel ku ma yaakaar sëñ Musaa Ka wax na ndagonte nag demam gi billaahi wolof ak nasaraanu kon ñëpp dem niiraan yi kon jàmm ji buñ ko amee ginnaaw yàlla sëriñ Tuubaa la billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Euh, mbokki taalib yëpp mbokki jullit yépp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di nag sama ay kilifa yi nga xam ne ñoom laa bokk réew mi yëpp tàmbalee ko ci moom Cheikh Mouhamadou xam ne moom la yàlla def tey nekk ci njabootu ci bopp njabootu Sëriñ Touba li ko siyaare di ko ñaaral suñu bopp ko wér may ko fan gudd te àggale ay yéene itam yëpp. gannaaw loolu nag dañu dajale fii ci aéroport bi tey man ak dong yi ngeen gis ci sama gannaaw ak dong yi toog ñu ma sëñ bolle mi sëñ Cheikh Khady Gueye mi ñu nekk ànd ak man ci yoon wi yoon wi du yoon lenn lu weesu yoonu ndigal rekk la ndax euh, bi nga xamee ne waa Gabon seen xel nekk na ci ziar bii ñuy doxi ñu war a jógee Libreville at mu nekk Eh, toppaat tracé yi nga xam ne moom seen bi jaaroon di yeesal seen i siyaare ak seen ku yaakaar jógee Libreville dem eh, Lambara nag bi ñu fa jógee dem Mayomba eh, loolu day liggéey bu rëy boo xam ne dong yi seen bopp ñoo am ab xalaatam te muy xalaat bu rëy di xalaat bu rafet ndax ab taalibe moom dund ci sëriñ bi rek moo ko war saa su muy dund rek muy dund sëriñ bi ñu ne ko sëriñ Muntaxa di diggale saa su nekk bi ñu ko xalaatee nag wax ko sëriñ bi mu jox leen ci ndigal rafetlu ko lool jox leen ndigal ñu wéyal ko ñu joxoon ma ndigal nag man ak sëriñ Xaadim mi ñu àndandoo dem jëmmal jëmmal ko fa mate nañ ko matewu ko amul solo ndigal li nga xam ne moom lañu jox rek ñun moom la ñu xool doonte xeeb nañ ko suñu bopp waaye ñu àndoon ak ñoom 1919 defoon ko jógee Libreville dem Mayumba ànd ak bokki taalibe bi yëpp yàlla wala itam yoon woowu alhamdulilah yàlla dogal ñu am ca ay ndam yu am solo euh, xëy na Covid bi taxoon na ñaari at yi mënuñu ko war a def waaye ren itam taalibe yi dogu ci ne waaw ñu def loolu incha allah yeesalaat ko ni ñu ko defee it sëñ bi daal di yeesalaat ndigalam ci noonu moo waral jéego yi biñ dikkee it fekk mbokki taalibe yi nga xam ne moom lañ ñoom lañu war a àndal dem ci bis boobee ñu nekk ci aéroport bi di ñu néggandiku ba tax noo ngi nii di waaj ngir dem foofu di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ci barkeb Sëriñ Tuubaa may nu mu dem ci jàmm euh, def fa lañ fa bëgg a def ci jàmm dellu siwaat ci jàmm fekk fi sunu kilifa ci jàmm fekk fi sunu njaboot ci jàmm euh, mu yoon woo xam ne nag yoon woo am solo la ndax euh, am na ay xew-xew xew ci biir libre Libreville ngir yeesal sunu Pastef maawa yom ba nag moom ku ne xam ne sëñ bi am na fa juróomi at sëñ Tuubaa nag benn bëccëg fu mu ko mas a am fii ci réew mi Eh, njaboot gi ma fa fekk kooke ma fa fekk ak njabootam ba àdduna tukki duñu ko fàtte mukk te duñ dañu di ko dundal kon nag foo xamee ne eh, nekk na fa lu toll ci juróomi at yi nga xam ne moom la nekk wéet nga xam ne gisul ku dul ku dul kuy wax eh, yeneen làmmiñ tubaab mbaa yeneen làmmiñ day doon dégg gisul sax kuy wax dama ne ma ne ah am na bis boo xam ne dafa wax ne dafa gis kenn ci koo xam ne dafaa gis kenn nit koo xam ne nee na nee na wala fam yi dafa lënt lëndëm lool waaye nee na gëj a gis gi mu gëj a gis ko yow wolof tax na nee na da ko saf lool te neex ko loolu moom ak tumuranke itam fu tumuranke yegg yegg nañ ci jëmam sàkk jaar nañ ci lim gën a fonk diineen gi di ko jéem a sànk loolu lépp jaar nañ ci moo tax sëñ mu Ka di wax ne sëñ bi nee na am naa fi juróomi at ak lu topp juróom ñaari at ak lu topp du dërëm du dugub dub dub dërëm waaw ah, dafa wax ne am naa fa juróom-yaari at ak lu topp du soxna du doom dub dërëm du fepp loolu sëñ bi tubarankeem noonu la meloon waaw juróom-yaari at ak lu topp du soxna du doom du dërëm du fepp loolu ah, nag lu doy waar la kon nag eh, loolu fi ko sëñ bi defee ànd ak tumaranke googu mas naa waxit mas naa waxit eh, suñ benn mbokku taalibam naar Eh, wan ko yaari xasida mm. ne ko ko mu jàng ko mu ne ko xasida yi de fa ko doon taalife kenn ku dul man bu fa nekkoon dana tal leneen lu dul di bind eh, di bind waaw ah, waaw sàkkantu di bind lu mel nii kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ndax foofu la defee lépp eh, nee na fara ba mel na jant nee bu doon boo fay dem weer la boo fay jógee ab jant la kon nag loolu lépp alhamdulilahi alamin Euh, kon taalib bi bu yàlla xiit nga dem fa di fa siyaare bu boobaa dañ lay rafetlu siyaar boobu te euh, dina ci dolli rek ay ay ndam ak kañ incha allah. suñ ko soo jërëjëf dafa am lu may yëg ci waxtu nekk saa bu ñuy waajal bis bii ànd gi nga ànd ak ñun nan nga gisee yow mi nga xam ne yaay sëtub sëñ Basiiru te bi sëñ bii dem ci géej mu dénkaane woon dénkaane mi tedd yooyu ban yëg-yëg nga am ci ci ci ci yoon wi boo booy booy booy dem maa yomba ban yëg-yëg nga am ci ne sa maam bi sëñ bii nekk fii booba gën a gudd àdduna nga dem ba tey sëñ Muntaxa di di di sëñ Basiru di sëñ Tuubaa nga ñëwaat taxaw taxawaayu jiite liggéey boobu ban yëg-yëg la sëñ euh, la sëñ ko sa am waaw sëñ euh, ki ngay waxal ni day yëg-yëg bi mu am ci loolu yëg-yëg yu bari la du sox benn yëg-yëg ndax eh, yi ci mat a fàttaliku yëpp dafa bari li ci jiitu mooy tubaab bi bu fekkoonte te pexam sotti na mm. sëñ Basiru moom du gisaat sëñ Tuubaa du ko dégg la ci am dégg la ci am day dégg ñu naan ku ñuy wax sëñ Tuubaa mooy baayam nii la meloon naa la meloon mm. bu fekkoon te ne seen pexe joyoon na noonu lay demee loolu mat naa sant yàlla mm. ci bi nga xamee ne ñoom seen pexe joyut ba ñu demee ba foofa itam am na bis am na bis ma ñi ma bokkal toog ma wax leen ne leen bañ hmm. demee ba maayom ba hmm. fi sëñ bi sampal ñeenti ban yi hmm. te tubaab bi ñëw dammate ko sànni ko euh, ba démb rek la ma ko nit nettaliwaat ne ba ma koy wax sax àll laa ko waxe waaye fàtte woon naa ko dañoo toog ca barab boobu ba yàgg maye leen suñu yoon wi day du ma desante yàlla la ndax bu fekkoonte ne tubaab bi seen pexe joyoon na ñu ndikkee fii xëy na duñ fi mën a ñàkk ñëw waaye nag buñ dikkee as njal la ñuy wan nii nenu mi ngi nii ndax kon dañ noon sàkk mooy mu wuy ji boromam te foofee te bu ko wuy woon boromam foofee it dañ koy wutal as njal rek teg fa bu ko defee buñ ci keneen ñaan njal si kat mooy moom ñu lu doy ci des nag mooy mm, tumurankeel gi nga xam ne euh, doon nañ ko tumurankeel te lépp jublu woon ñu woon ci lu dul euh, faat bakkanam waaw ngir rek ab liggéeyam bañ a waaye loolu yàlla daf ko la ndax dafa wax ne man bi may dem ni ma mën a misaale sama yoon wii ci géej gi eh, dafa mel ni nit koo xam ne dafa toog fi barabam di def nangam nit fekk ko fa ne ko doog fi defe ñu di ca béejoo ñoom ñaar ñu di ci béejoo di ci béejoo di ci béejoo nee na ba ànd ne meñ ñu dem ba mu yàgg ña fa ñañ fa bàyyi woon toog leen seen leen ñoom ñaar ñu ànd di ñëw biñ dikkee ka doon def toog fam toogoon di def te ka ko doon tere tereetu ko loolu nu mu demee kon nag alhamdulilahi rabbil alamin eh, yëg ndi ki yëg bu bari lañ ci am xam nañ ne daal ñun sëñ Basiru bu fekkoon te pexam am na day dégg ñoo sëñ Tuubaa nangam yëg-yëg bi ci topp mooy bi muy dem yëg wax ne moom maa ngi dem liggéey daal damay jël siwaat bi muy dem wax ne bu dee góor nañ ko tudde Bachir bu dee jigéen nañ ko soxna Xadi muy góor ndax dam ni ko Cheikh Ibrahima waxee muy góor di tudde ko sëñ Bachir te Xadi moomee mujj na am tuddoon mu tuddoon Xadi moomee mu tuddoon mujj na am ci soxna Fatima du am ak jóge sëñ Tuubaa moom lañ kii waaw maanaam sëñ bi bi mu nee nañ ko tuddee sëñ Bachir bu dee góor bu dee jigéen nañ ko tudde soxna Xadi yaar yëpp mujj na am sëñ Bachir mu na am soxna Xadi mujj na am waaye Cheikh Ibrahima moom dégg-déggam boobee dégg-dégg mënu koo gën a kawe ginnaaw bu dee bu dee góor la jëkk a wax Cheikh Ibrahima xam na ne góor la hmm, hmm. moom mu jëkk moom mu jiitu ko ca farxaat balaa muy ñëw kon alhamdulilah rabbil alamin waaw soo na xarit mi nga xam ne itam moom lañ ñu duppee waajuru kii mu jën a am ba nekk na fi as ndiir euh, ba dëgër ma nga ñu denc bàmpara barki dem la koo am bàmpara doon màggaral ci muy màggal boo xamante dañ koy def rek ngir fàttaliku soxna Xadi boobu xam si nañ ko mi ngi njaaram mu génn adduna mun ne nañ ko yóbbu Mbampana waaw Mbampana sax la Mbampana la waaye loolu lépp daal yëg-yëg bi ci bi ci des Euh, rek mooy li ñuy wax li nga xam ne moom la sëñ bi wax rek ci yoonu géej gi nga xam ne sëñ mu Ka junj ne ko te mooy boo xamante ne yoonu géej gi amutoon ba mu liggéeyee liggéey bu toll nii ba agsi fi mu agsi ci boroomam bu boobaa lii mu sowe ci aw nit du leen mën a sowe te bu boobaa ñu ci ëpp daañ man daañ dem sawar ndax li ci li ci saayir si mooy tubaab bi rek dana not réew mi not goo xam ne allah ko bu duutu jib lenn loo xam ne luy niru aw yiw la woo xam ne taxawaayu lislaam la duutu jib te ku ko koo weddi nga seet ko ci réew ya nga xam ne da dañoo dañoo tubaab bi dafaa dem coloniser leen te yàlla def colonisation ba sotti idéologiquement maanaam mu dugg ci seen ngëm dugg ci seen i xalaat ba xalaat yooyee sax fa na réew yooyee mel noonu lañ war noonu la ñuy xoolee Sénégal ci kaw bu fekkoon te amuñu woon sëñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa mënuñu dudul euh, yaakaar ko sant ko gëm ko te di ko liggéeyal guddi te di ko bëccëg te te bàyyi ko suñu lépp mi nga xam nan la ko sëñ Muntaxa dénk maa ngi sant taalibe yëpp di gërëm ñëpp. léegi sëñ bi bala daaneel ban message ngay laase xam naa ne taalibe yu bari nañ waaye ku mel ni yow te yor sant wi te demagut foofee sëñ bi nekkoon ban message ngay laase ku war a dem maa yomba. Mhm. ci yëg-yëg bi nga xam ne moom laa la wax léegi ngir. ne fa suñ tubaa nekkoon foo xam ne nee na woor naa fi weeru koor ba ba ba ba ba ba koor gi jeex daanaka du mu gisuma lu muy ndogu ci xobi garab yi yu mel noonu ndax waruñoo gën a bàyyi xel ne foofa ku yor sant yi wala ku bokk ci yoon yi ku mën di doon war naa mën a dem seetlu ji foofee suñ tubaa nekkoon comme ni nga ko waxee samp fa bantam yooyu ñu sempi ko woor fa amul lu mu xewloo ban yëg-yëg ban message ngay lancé waaw dama koy waxaat rek mu laa waxoon léegi loolu sëñ bi wax ne am naa fa juróom yaari at ak lu topp du du du soxna du doom du dërëm du fepp moom nga wax ci loolu nga dugg euh, lancement message bi nag mooy loo gëm-gëm sëñ Tuubaa ak loo ko fonk-fonk ak tumuraanke gi nga xam ne moom la Tuubaa bi yéene woon ci moom loo ko gëm-gëm ak loo ko xam-xam boo demee foofa sa xam-xam dana ci dolli ko ndax loola mu ngi tàmbalee mille neuf cent 1895 euh, mu nekk fa ñaari at yu jëkk yi mu ne ñaari at yu mujj yi euh, mu nekk na jóge fa dem dellu dem ba am fa juróomi at juróomi at yooyu ca 1995 nga xam ne mën ngaa jàpp ne diggante 95 ak 1900 euh, diggante boobu 1895 ak 1900 diggante boobu fa nekk ca yooyu jamono nan la waroon a mel par rapport ak tey ndax tey jii bañ fa demee danañ gis ne luy niru yokkute gisuñu ko fi ba ba deux mille euh, dix-neuf bi ñu fay mujj gis maanaam euh, tumaanke rek ma fa am amul dara loo xam ne du ci yokku la amul genn tumaanke goo xam ne maanaam na mu àllee woon cay jamono ak tey amul daanaka amul benn différence kon tey nan la waroon na mel maanaam li ma bëgg wax mooy euh, àll ge mënu faa raw ku fa toog tumuraanke daan la dal ku mën a doon ba léegi ci l'an deux mille euh, vingt deux kon nag nga dellu delloo sa xel ci gannaaw laaj ba xam jamono yooyu kon nañ la war a mel te lu ñu étudier la loo xam ne tubaab bi dañ ko étudier bu baax ndax Afrique centrale dañoo am ay dañoo am dañoo am lu ñu mel dañoo am lu ñu mel climat bi climat la boo xam ne climat bu góor la euh, bari ndox Eh, bari ay godd mm-hmm. bari ay ndegment ba léegi sii may waxee yow am na fa àll yoo xam ne doomu aadama mësagu faa teg tànkam ba fa Jibril la dee laal fa ba dëggan si Afrique centrale doon ay nit ñoo xamante ne bi mm-hmm. ñuy wax bon ñu ñu ñu ñu gi waaye mm-hmm. mën nañoo wax ne ay sauvage la rawaat na ci ay jamono yaa ñàkk civilisé ñàkk mën a jox doomu aadama àqam Euh, mën a tumuraankeel doomu aadama néeg ci doomu aadama yooyu yëpp ci yooyu jamono dafa am kon ñoom tubaab yi bi ñu ko fay yóbbu loolu lépp éti nañ ko même ba ci climat bi nga xam ne wër te baax sax ci ku ku dëkk Afrique de nga xam ne dafa bari naaj bari ngelaw néew taw ak yu demee noonu boo fa demee ci taw bu mel noonu lan moo la fa mën a dikkal godd ya fa nekk ñu di nga xam ne moom ëpp na yoo ëpp na weñ ak ak am dangar teg ci noonu la war a mën a wàññi nit àll bi nga xam ne itam wax naa ko léegi ba dibi rëlee laa xam ba léegi nit mosu ba léegi si may wax ak yow nit mosu faa dugg teg tànkam kon te boo daanoon boo boo garoon garab ci kaw garab lay daanu kon loolu tumuraanke gu mel noonu boo ko bàyyee xel eh, ku fa dem bàyyi loolu xel da loo gëmoon Sëñ Tuubaa loo ko fonkoon luñ la waxoon wax tumuraanke gi dana am loo ci tegal sa bët loolu moo tax maa ngi woo ñëpp ku ko man mu dem mu ñëw fa mu ñëw fa bis rawaat nañ fii ci karawaan bi ànd koo bokki taalibe yi ñu dem dañ kumpa loolu euh, def fa luñ ci man ci ay ay ay ay ay ay ay ay alquran ak xasaayid yi nga xam ne yi ci gën a bari fa la ko bindee ñu bàyyi ko yi nga xam ne euh, waru waru waru waru waru jàppoon na ne waru ko bàyyi ci kaw suuf si am na ci yoo xam ne foofu la ko def kon loolu lépp sant yàlla lañ ci war def ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp ko man rek bu teewee ko daal noo ngi sant yàlla bi ñuy dem ci ndigal sëñ bi di dem ci ndigal bi ànd ak ànd ak taalibe yu bari yoo xam ne ñoo dem seen Pastef mate na ko di sant uh, Xaadim ni nga ko waxee léegi ci taxawaayam bu rafet la sant yow sëñ Cheikh ñu lay sant bu baax sëñ boole ak boole mbokk taalibe yi ñu àndal di sàkku ci mbokk taalibe yëpp ñaanal dem ci jàmm Eh, te lañ fay wuti di ziare ak yokk ci ak ndigalal sëñ bi yàlla may na ko ci barke sëñ Tuubaa. waaw jërëjëf mbokk yi di ko sëñ Koso waxee rek jàpp naa ne ànd ak sëtub sëñ Basiiru daal di dem maa yomba tawféex la ci ku xam ku xamul nag waxuma waaye ci ku xam ànd ak sëtub sëñ Basiiru di dem maa yomba tawféex la si woon sëñ Xaadim jërëjëf di ñaanal sëñ naa Buso ma nga sëñ sëñ Fàllu Buso ma nga xam ne yëg-yëg bii la ñoom ñi nga xam ne ñoo initié caravane bi surtout sëñ Cheikhouna Bousso waaw nga xam ne way juram di sëñ Fallou Bousso moo defoon loolu lépp moo ko moo moo ko moo ko xalaatoon créé ko taalibe fekk ko ci lu mel ne sëñ Cheikh jiite ko sunu mbokk sunu doomu bàjjan soxna maam Jaara buso dox ci ay jéego yu bari ba bay boo nga ne karawaan bi mujj def moo ko jiite bi muy demit ci karawaan bi doon waajal nga moom itam ñu ngi koy ñaan suñu borom gàttanu ko ci loxoy sëñ Tuubaa yàlla defal ko yërmaan defal ko jéggal ñu koy defal sëñ Fallou ñu ngi koy ñaanal sëñ Fallou ñu ngi di sant sëñ Cheikh rek ak mboolem kuréel gi nga xam ne moom la ko àndal waaw ci fàttali suñu mbokk taalibe Badou Sène nga xam ne moom moom a jëkk dugal mbirum karawaan bi sama sama nopp Euh, ak mbokk taalibe yi mu ko àndal yépp fàttewuñu kenn euh, bëgguñoo lim di juum ñooñ dañ leen doon cité sëñ Cheikhouna sëñ Cheikh Mbengue Baddo moomu ak mboolem ñu ko àndal ñaanal itam sëñ Fallou ak sëñ jaar Diarra Bousso yàlla defal leen ay tawfeex ñu fas ko yéen daal di ko ànd euh, waxtu rek rek incha allah jërëjëf. jërëjëf Mbacke comme ni nga ko waxee rek sëñ bi mattal nga lépp ndax Soxna Diarra daaw dañoo ànd. Euh, comme ni ñu àndee woon ak yow mu ne daa tëdd ba guddi gént ay Baay Faal ñuy sikkar foofa ca maa yomb wallaahi moo ma ko wax keroog bañ demee ca kàddoom googa sikkar la njëkk def ca maa yomb jooja ñoo ko àndoon maa ngi yow ak sëñ sëñ sëñ kii bi kon la sëñ Fallou gisoon sëriñam ba ba taxawal ko bàyyi ko fi sëñ naa tamit di ku baax sëñ naa Buso nga xam ne daanaka fu mu fi toll rek même bu ko antu ñu nit ñu ko leeral nañu fii laa toll ñoom sëñ Cheikh Mbeng ak ñoom sëñ Baddoog ñoom sëñ Kàllaam ak jëwriñ yi ko seq ñëpp rek mbakke nga ñaanal leen ndax liñ bëgg rek mooy nit ñi découvrir fan la sëñ Touba nekkoon ci Gabon loolu rek mooy mooy bi loolu rek mooy karawaan bi loolu rek mooy wàccaay ndax bari na fa tey jii foo xam ne boo fa taxawee ca lañ gën a bëgg ca seen dëkk ba muy xaalis ñu ne la fii la sëñ Touba doon suul xaalis bi bi mu fi nekkee ñu ne la fii la jullee woon montagne seen ñu ne fii bokk na ci fi ñu wax ne fi lañ ko takkoon muy garab googu ba ahlu badar ñëw Mbàkke sa maam dañ ko war a xam ba tey jii ñu war ko fa tuddee mbedd moo xam ne yaakaar naa boo demee yaa koy tijjil sa bopp loolee ci ay victoire la bokk ak leneen lu ñëwagul ndax Sëñ Tuubaa nee na njariñ laa loo xam ne ànd ak lor ànd ak yéen daal man mooy ministre kon Sëñ Tuubaa yor koom mi ka moo yor koom mi ah. dem nañ ba def def ko ci turam. ñu tabaxal ko fa jumaa. jërëjëf Mbacke sa maama yor koom mi moo yor lépp. ginnaaw mu noonu la ko defee woon foofa. sax rek ñu ñaan. bantam yooyee mu sampoon. te ñu ñëw dindi ko. Uh-huh. sànni ko ci àll ba. Uh-huh. ñu ñaan yàlla yàlla dem ba def ko jumaay Sëriñ Tuubaa. mu ñetteel juma mu ñetteel ñaari juma yi nga xam ne moom la wax ne moom ma gis sëñ Tuubaa sax li ko yàlla fay ci juma moom macha allah xanaa dafa tolloog yii mën nañ ca tudd waaye ñu dema dem nun daal ba foofu itam ñu defa juma ñu jumaay sëñ Tuubaa ñu wax ne fii la suuf si moom ñeenti bant yi ñu sempi ko tey tey ji jumaay sëñ Tuubaa moo fa nekk dërëm lal géej ba julli mu mat te bëx dawul xablewul xibleb sëriñ saa ngi kudul sëriñ Bamba bu jullee sax ci déeg dina déeg bu dee sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi li tax ñu naa sëñ bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon seerey jëfam yaa ngi maa yomba yomb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy élément ni jaam ñu njiit laa ngi làmbar na yomb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy élément ni jaam ñu njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jeeloo len jaale wuñ bokkam lu seen màppandoo nee leen ko maam yaa ngi ku dem ba daw me dammu deewoo rafoo te yow sut nga ñëpp salaan ngeen ron guma gaa ngi yal na yàlla fayal ma siyaar bu baax si xarit sant bu baax nag ci yoon wi nga xam ne mooy caravane maa yomba bi ñu fas yéene faa dem nii pour mën a visiter jaar-jaar yi nga xam ne fi la Sëriñ Tuubaa jaaroon mu nekk mbébétu murit yëpp kenn ku nekk bëgg faa dem eh, ñu war fa dem nag teewal fa ñu bëri ngir eh, jox leen information yi nga xam ne moo fay am ngir wan leen barab bi ñi nga xam ne tamit munuñu fa àgg waaw di rafetlu bu baax nag eh, liggéey bi ak taxawaay bi di ñaan yàlla ñu dem ci jàmm dikkaat ci jàmm eh, tasa faa ngërëmal sëñ bi. ay bi moom mooy teewal fa mboolem murid yi rek maanaam wan leen li nga xam ne moo fay am ci fi nga xam ne fi sëriñ bi jaaloo. muy maayom baag liwér bi rek yëpp dëkk yi nga xam ne daal war nañ fa dem te sëñ bi jaarul fa ñu wan ko mbokk taalibe yi nga xam ne amaana am nañ yéene ñëw waaye mënuñoo egg si bu ko defee ñu man leen ko wan ci image bu soobee yàlla daal yaakaar naa képp koo xam ne topp ka plateforme yi mu xam ne muy Touba Vision Tawfekh Production muy buy mbind TV bu soobee yàlla lépp lu fay am daal dinañ leen ko jox euh, incha allah ci liggéey bu rafet bu mucc ayib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 rabbi aawuusu bika min hamazaati sayaatini wa aawuusu bika rabbi an yaxduruun bismillahi rahmaani rahiim amdi wa sukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suqutin inda sarsaara lahu sanaa'i wa ridwaani bila siqatin مسعد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من ارتحلنا وفيها جم من سارا إن الذين إلى صرصار قد خسدوا ziyaarati faaraxu daarayni aw saara yaa raxmaanu yaa raxiimu rabbi bi ma yasraam asqaana xaat fajaa bi jaayi afdali man lillahi xad la jaa hamdi li rabbil karim min la sharika lahu وصدري اليوم نورا ساتئا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل بكلام أدعو إلى الذي أحمد مواهبه لجملة خلقي ما يختار من براء ناجيته جل ومن وكرمني تكريما حاد وكن لي من لقد بريا رحمن وابل الجميع اقل خير رحمة من يوني أني شريما قرآنه الخراء مات المصطفى عن كل مفسدات وترحمي خلقايا من جدهم بلاء يا مالك الملك يا من جل عن حواد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء يا مالك الملك يا